jërë ngeen jëf mbokki internet Allô Sénégal tey Cheikh Abdoulahi boroom kurus gi dafa mer yaramam dafa tàng lan moo tax moom mooy sëriñu Ousmane Sonko waaye gis na ni Pape Alé Niang dañ koo commencé néewal doole ba fee mu nekk mu ngi ci diggante dund ak dee waaye sëriñ bi war na ci def ay révélation yu yéeme ci feebar bi nga xamante ni moom moo dal Pape Alé Niang mi waaye tamit sëriñ bi am na lu mu gis ci rapport bi nga xamante ni moom moo nar a jàpp lu Mimi lan moo nekk ci ginnaaw sëriñ bi dinañ ci indil ay leeral sëriñ bi dinañ indil ay leeral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 qaalu subhaanaka laa ilma lanaa ilaa maa alamtanaa innaka antal alimul hakim rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli mbokki Allô Sénégal ñu ngi leen di nuyu di nuyu ñu ci réew mi ak ñu ci bitim réew murit tiijaan xaadir laayeen ba ñu ci jàngu bi ñu ngi leen di nuyu di leen wax asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñu ngi leen di dalal ci kër gi bisimilah rahmaani rahiim tafadal muskura hmm. sëriñ balaa ñuy dem ci actualité Pape Alé bi dafa am loo xamante ni dañ ma koy yóbbante internet yi ñoo ma koy yóbbante muy jafe gi nga xam ne jafe nga koo jot ci téléphone ñëpp ñi ngi kaas ne lan moo tax nga jafe jot téléphone. waaw sang bi ñu ngi tuub di jéggalu ci ñenn ñi xëy na amaana ñi ñuy woo jotuñu dañ des comprendre. Hmm. damay faral di wax ne sëriñ warul am jot maanaam da ngeen ñoo liggéeyloo mhm. dañoo feeñ ci internet bi ñëpp gis ñu dagg seen yitte yi jël seeni alal jox ñu boo leen ñu joxee suñu al seeni alal rek liggéeyloo ngeen ñu soo leen ñu liggéeyloo jot dootul bëri mhm. ndax waxtu ne ñu ngi ci kurus waxtu ne ñu ngi dagg suñuy nelaw nekk ci kurus mhm. buñ jugee ci loolu ñu ngi ci jàng ñu ngi ci jàngale waaw kon nag ñun jot du bëri waaye képp koo xam ne woo nañu jotooñu yónnee ñu message ci whatsapp bi. Mhm. boo ñu yónnee bu ñu fekkee ci réew mi ndax léeg ñu génn euh, di ngeen ñu jot. mu moo xam ñu ngi ci réew mi moo xam ñu ngi biti réew. waaw boo leen ñu yónnee bu ñu jotee message dinañ leen tontu. damay ñaan képp ku ma woo jotuloo ma rek. bu ci mhm. yàkkamti dara. Mhm. jëlal message nga yóbbante ko Cheikh Abdoulaye danaa tontu. ndax yéen yéen a ñu fi bàyyi. kon nag ñàkk jot bi du dara dañoo nekk ci njàng ak njàngale. ak nekk ci liggéeyu jaam yàlla yi yéen a ñu liggéeyloo moo tax ñun dañuy ñàkk jot daay man mhm. moo tax damay faral di wax ne bu ma gisee yenn sëriñ yi chaque jour ñu nekk ci internet bi man loolu lu may yéem la <laughs> parce que mënoo wax ba ñun ñi liggéey loolu ba pare mhm. bés bu yàlla sàkk mhm. ñu la tàllalee micro nga wax ndeysaan yow yan waxtu ngay liggéey yan waxtu ngay ñaan yàlla yan waxtu ngay jaamu yàlla. Hmm. kon nag nit ñi nañ xoolaat seen bopp ci loolu. man daal képp ku ma woo jotuloo ma maa ngi jéggalu ci loolu. waaye bàyyi ñu message. Hmm. Cheikh Abdoulaye bu jot bi mayee. Hmm. dana tontu ku ci nekk ak sa aajo nu mu toll. danañ ci dugg yàlla dinañu ci may ndam incha allahu rabbi. aajo yu bëri te nit ñu bari dañuy dawal dañuy daw jëgmal ko moom Cheikh moom sëñ Abdoulaye Thiam looloo tax nag bu ngeen ko woowee du ngeen ko jot waaye si fi ñuy jàll mooy ci actualité Pape Alé Niang bi gis nañ ni caabi féete na ko ginnaaw waaye. dafa commencé grève de grève de la faim grève de faim boobu noonu jamono ji Pape Alé Niang sonn na lan ngay dikk ci feebaram bi. waaw loolu du dara yaakaar bu tas la parce que Pape Alé Niang dafa nekk benn monument bu rëy ci réew mi dafa nekk jaam yàlla boo xam ne liggéeyal na réew mi. ci wàllu journalisme d'investigation. waaw feeñal na mbir yu ci bëri président Macky Sall mi Pape Alé bokk na ci ñi ko fal. parce que fàttalikul 31 décembre ba mu ko invité. Mhm. Sénégal dañ ko déglu mu wax politique am yëpp. ci 2STV. àdduna mhm. bi yëpp dégg ko. képp ku amutoon moom ci cofeel ci moom. waaw tax na nga am cofeel ci moom mu am yaakaar ci Macky sàll am mhm. confiance ngir mu liggéeyal réew mi. kon nag suñ demee ba Macky sàll falu. bu mu utiliser doomu aadama yi nga xam ne ñoo ko faloon bu mu leen def seen noon na xam ne ñii dañu am seen ay opinion di ko wax. te wax bi ñuy wax jubluwuñ ci yàq mhm. waaye luy defal réew lañ ci jublu ndax moom it na fàttaliku ne mandaam daf ci waxoon ni duma mës a tëj journaliste kon nag bu demee ba wax waxeet na seetluwaat boppam parce que président Macky Sall na xam ne moom rek moo fi président boo xam ne moo fi juddu ginnaaw indépendance Sénégal yëpp am yaakaar ci moom mhm. kon nag na bàyyi nit ñi may leen liberté ku bëgg a wax nga wax mhm. ndax loolu bokk na ci li tax moom mu yegg ci pouvoir bi mhm. maanaam injustice lañ doxal ci kawam ab Ablaye Wade doxal injustice ci kawam sénégalais yëpp sotal ko ba yàlla may ko mu accéder ci pouvoir bi mhm. kon nag na bàyyi nit ñi ñu wax li leen metti wax lu leen naqari critique kenn waru koo bañ waaw parce que critique bi mooy tax yow nga yokk sa góorgóorlu lépp luñ la critiquer président yaa ëpp renseignement ñëpp Mhm. critiqué nañ la ci wàllu mbay mi bu ne fexeel ba mbay mi yokk critiqué nañ la ci wàllu napp gi fexeel ba bu déwénee liñ la doon critiqué mhm. nga romb point boobu noonu loolu mooy lu am solo loolu mooy développer réew kon nag njiit dafa nekk koo xam ne dafa war di jéggale waaw ñu ngi ñaan président Macky Sall mu jéggal président de tous les Sénégalais Pape Alé mhm. mu génn telluwaat ci société bi xam na ñun am nañ soxla ci moom amal nañu njëriñ kon nag ñu ngi ñaan président de la république ñu gracier may Pape Alé Niang liberté provisoire. Hmm. mu dem doxiwaat soxlaam dellu ci njaboot. waaye Cheikh bi révélation yi nga xam ne yaa ngi war a def ci feebaru Pape Alé bi dama koy yóbbu ba ci digg bi ñu waxtaanee xam-xam fi ñuy njëkkee ci xam-xam mooy wàllum ubbeeku sëriñ bi lan nga ñuy jox tey ci wàllum ubbeeku. ñu ngi sant yàlla ci loolu. damay wax ne doomu bu ubbeekuwul. waaw sa mbir dara du ci dox. gis nga yonent yi ngay gis. yàlla indi leen ci jamono. kenn ku ci nekk yàlla daf la booleeg ay doomu aadama yu ubbeeku ngir ñu mën a matal sa mission dëgg gis nga mission yi leen ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sayyidatuna Xadijatu daf cee joué lu bari ndax lépp lu mus a am ci alal jox na ko yonent bi sallallahu alayhi wa dañ ko wax ne démb màkk yaa fi ëppale woon tey bokk nga ci ñi gën a ñàkk ndax lan lam am yëpp jox na ko yonent mu jaamoo ko borom bi nga gis Seydina Ousmane lépp lu mu mus am defal na ko diine lislaam kon nag diine sax boo ko buggee matal ala fokk nga ubbeeku ndax nekk nañ ci jamono joo xam ne soo ubbeekuwul mën ngaa dëkk ci estres te li koy waral mooy di nga gis sa doom feebar nga bugg ko faj doo ko mën a faj di nga gis sa waajur tawat nga bugg ko faj doo ko mën a faj ndax ñàkk ku nekk na ko muslu Seydina Omar danoon wax ne ñàkk bu fekkoonte ne jëmm la mm. man danaa jël sama jaase xareek moom ba rey ko kon nag ñàkk amul njëriñ Cheikh Moussa Ka woykatu Cheikh Ahmad Bamba daf ne ñàkk baaxul ci waaju baax mm. dafay tas këram am xelam di jaax mm-hmm. kon nag ñàkk dafa nekk mbir moo xam ne nañ ko ragal ndax kenn du ko tuddee sa doom mm. yàlla nag indi na fi lu ñuy jëriñ mm-hmm. li ñuy jëriñ mooy lan alquraanul karim ndeysaan wallaahi alquraanul karim mooy lan maa farat naa fil kitaabi min shay'in mm. yàlla waxaat ne nunazilul quraan maa wa shifaaw wa rahmatun lil mu'minin kon nag nañ gëm ne alquraanul karim benn kalima benn baat bu sell ci alquraanul karim mën nañ ko jëfandikoo ñu am ci ubbeeku turu yàlla yi mën nañ ko jëfandikoo am ci ubbeeku am na yu ñoon wu ñu ubbi doomu aadama ci yaasataaru am na luñ ciy jël bind ko boole ko xeeru tiim jox la xeeru tiim bi nga ñaan sa soxla sànni ko ci saafara bi wallahi lazim lépp loo lijjanti dina mm-hmm. sotti mm-hmm. bunt boo fëgg dana tijjeeku mm-hmm. di nga am ubbeeku te doo am tëju am na ci loo xam ne buñ la ko joxee boo ko sangoo dëgg-dëgg Lamine ba moytuwul sax da ngay beew parce que wërsëg dina la eh, dikkee fu macha allah waaye bunt yi dafa bëri ci wàllu ubbeeku mm-hmm. nee naa la dem nañ ba ci wàllu sunguf mm-hmm. damay wax ne garab yi alquranul karim la waaw ndax lépp mindee fi yàlla la garab yi ñu ngi leen bind ci alkubeer am na ci garab yoo xam ne tey soo ko jëlee juróom-ñaar yi garab nga jël ko benn bu ci nekk nga gës gas ca reen nga def ko bu muy ñuróom ñaari garab ko lu ci mel ni garabu wës wës mhm. nga ñëw ci garab gu njëkk ga gas ca benn reen dem ba ca topp def ñaar ñetteel ba ñett ñeenteel ba ñeent juróomeel ba juróom juróom benneel ba juróom benn juróom ñaareel ba juróom ñaar nga boole ko mu nekk ñaar fukk ak juróom ñett tolloog arafu abajadda yi eh. am na sangat buñ ciy def waaw damay wax ne sunguf boobu noonu VIP lañ ko tuddee boo ko sangoo bi ñun ñi amee di nga am suñ amul dinga am kon nag yàlla ku ko ñaanul hmm. da nga koo noppal Cheikh dem naa ba ci ubbeeku goo xam ne nit bëgg na ko mu gaaw joone jooni hmm. yàlla may nañu ci yoon mu wér a wér boo xam ne kuñ fa jaaral hmm. dinga nga ubbeeku ñu dégg sa tur ci am am kon nag ubbeeku damay faral di wax ne jafewul waaye nit ñi ñoo tayal yàlla buñ ko ñaanee ci ay turam ñaan ko ci ay meloom yàlla danañu may lañuy ñuy ut di ko sàkku mm-hmm. nee naa la alxuraanul karim mm-hmm. kenn waru koo mokkal di ñàkk alxuraanul karim kenn waru koo am di ñàkk dépense ndax li ci nekk ci njëriñ kenn xamul nu toll mm-hmm. araf yi dana jëriñ lépp day jëriñ ci alquranul karim aaye day jëriñ saar day jëriñ lépp dafay jëriñ ci alquranul karim kon nag ngir ubbeeku képp ku fëgg suñ bunt ngir ubbeeku macha Abdoulaye dinaa la jox loo xam ne. Mhm. boo ko jëfandikoo mbindeef mënu laa teree am rab mënu la teree am. cat mënula tere am. Mhm. làmmiñ mënula la teree am. Mhm. incha allah macha allah ubbeeku euh, Cheikh Abdoulahi Thiam dafa ànd ak kaaraange gu mat sëkk looloo tax ñëpp daw jug jugmal ko ci ubbeekute waaye li tax tamit nit ñi bu ñuy xëccoo rek xel dem ci moom bëgg naa tey mu indil ñu ci leeral ci wàllum xëccoo. ñu ngi sant yàlla. gis nga buñ na ubbeeku ne kaaraange. soo amee te muccoo waaw da toog la nga amoon yëpp nga ñàkk ko bés bu jot nit woo ma ne ma démb amoon naa nangam ci alal te yoratuma benn dërëm mu ngi mel ni nga tabax sa kër ba mu rafet utoo ci buntu defoo ci dara ubbi buntu yëpp sàcc mën na dugg yàqal la fa dem yoonam te du la amal njëriñ mën nga mm-hmm. bay sa tool ba mu ñor léemoo ko ñagoo ko rab yi dugg fa yàqal la mm-hmm. damay faral di wax ne ku ci maytuwul xar fu xuufa yi dina la ne xuuf dem yoonam. Mhm. sëriñ Fallou radiyallahu anhu danaan wax ne. waaw da ngeen di takk balaa ñu leen a takk. naan leen balaa ñu leen a naandal sangu leen balaa ñu ne la sang. ndeysaan kon nag jaam bi mucc na ko def. nañaan yàlla mucc. yàlla bind na doomu aadama bind garab. garab jooy bind dee bind garab. dee jooy ne ko man nu may def ba rey ñu ne ko mu ne ko ndax da indi garab. yàlla ne ko képp ku fi sàggan. jëlee ko fi. Mhm. kon nag garab yi dañ leen indi ngeen ñu aar doomaadama yi. nee naa la xeeru teen bu të. dañ ciy liggéey loo xam ne nit ku ko sangoo mucc. Mhm. di nga am kaaraange ci àdduna am kaaraange feneen. ak tamit ñu ngi liggéey nombo goo xam ne képp koo takk caabi du la féetee ginnaaw. waaw nomba gi nag ñu ngi ko tuddee bañ gàcce la tudd. boo ko takkee sa ndigg doo dee ci accident. Mhm. doo dee ci lab. Mhm. caabi du la féete ginnaaw kenn kenn mënu dugal mhm. kaso. Mhm. parce que boo ko takkee mucc nga. kaaraange de kaaraange daal damay wax ne. képp koo xam ne nii aar nañ la. waaw képp loxo bu jub ci yow. man Cheikh ma damm loxo boobu ci digg. la ilaha illallah niveau boobu lañ toll ci kaaraange. képp koo xam ne rek. waaw bëgg na mucc fëggal buntu jàmbu xeebu bi. ndeysaan ku la liggéey dee. ndeysaan ku jëm ci yow dee. ndeysaan ku la liggéey accidenté. ku jëm ci yow dee. Mm-hmm. bu liggéey nekkee ci yow ñu jël liggéey bi delloo ko ca ka ko defoon loolu moom yàlla may nañu ci lu wér a wér mbiru noom nag comme li ma la ko waxee ñun ambassadeur lañ ci loolu waaw mbiru noob xam nañ ko mu wér mbiru xëccoo moom damay faral di wax ne képp ku ko yóotu dara ci réew mi waaw te bëgg cee jot mm-hmm. fëggal ci buntu jàmm bi ah, xam nañ buntu bi fii yàlla may nañu ndax ñu ngi liggéey loo xam ne dañ la koy jox lii nga suul ko ci reenu garab lii nga takk ko ci reen euh, kii euh, ca ca bànqaas ba bu fekkee da ngay xëccoog nit tey Lamine ñu jël sa tur def ca kaw turu ko ñu def ko ci suuf waaw doomu aadama boobu la muy xëccoog yow dafay dem ci suuf rek yow la ngay ut nga am ko waaw moo xam lu mu mën a doon da ngay xëccoo ci wàllu football da ngay xëccoo ci wàllu loterie bëgg koo am mhm. ba ca biti réew nee naa la ba ca États-Unis Powerball yëpp yàlla def na ñu ngi koy jouer ay doomu aadama yàlla di ñu ci may ndam mm-hmm. li tax ñu koy def nag yërmande la rek ñoo xam dara am ñu ci am yitte ñu mën leen a ñaanal ngir ñu jot ko moo oh. tax wàllu xëccoog loterie ba ca bitim réew ak ba ñu joué ci Allemagne ak ba ca Europe ba ca Amérique buntu jàmbu xeebu bii ku ko fëgg lépp loo ci yootu muy xëccoo di nga ko am wàllu examen examen bu mën a doon mm-hmm. ku ñëw fëgg buntu jàmbu xeebu bii am nañ yoon ci war a fax naahu makaanan xaliyan mhm. képp kuñ ko liggéeyal loo xëccoo jot ci ak lu mu mën a doon yàlla may nañu ko duñ ko namoon nag ndax wa amaa bi nehmati rabbika fa bu ñu leen joxee xéwal yi mhm. jël leen seen temps di ko waxtaanee yàlla moo ñu may loolu kon nag sañ nañ bàkkoo ne yàlla moo ñu may te lim ñu may lépp ci alquranul karim la li tax ñu tuddee ko l'ambassadeur ci wàllum nopp du hasard ba tax tey sañ ñoo toog ak moom te duñ ko laaj lan la ñuy dikkal tey ci wàllum boole. boole ñu ngi ciy sant yàlla. damay wax ne dafa bëri sëriñ yuy mbelelele ne mën nañoo <laughs> boole ay nit mënuñ ci tus uh-huh. boole dama lay wax ne uh-huh. doomu aadama da ngay jàpp xelam uh-huh. jàpp xolam jàpp jëmmam boo defee loolu yëpp jàpp bidiwam jàpp raw xaanam képp ku yeggagul ci niveau boobu noonu ci wàllu boole waaw boole ay nit mën nga defal nit dara nag mu gis changement. waaye du continuer parce que dafay taxaw. Mhm. boo déggee ñu naan liggéey bi bu demee ba ci kanam day dañ dafay fekk mbër daf ko jàppul. waaw moo tax mbiru boole dañ ci am lu wér. nee na la fàttetul kitaab rek am na yoon wuñ ciy liggéey. Mhm. jox la ko nga def ko ci butéel def ci meew bu meew nga suul ko bu meew mu woyee boromam àddunaam tukki na. nee na la am na lu ñuy liggéey ci soble nga def ko suul ko bu soble ba nëbee nit ko topp la ni xaj ji toppee boromam. Hmm. nopp am nañ ci alxuraanul karim am nañ ci wàllu sunguf nee naa la am nañ noob boo xam ne dafa am cosaan sama waajur bu góor. dafa gisoon benn benn rëbb. boo xam ne dafa mës a toog sonn toog ci ron garab rëbb boobu noonu jamono danoon dox sama papa di ko gis dëkk bu mu dugg jigéen ñi topp ko. mu laaj ko nag ne ko yow lan mooy sa secret mu ne ko man nag damay fàttaliku benn jamono dama mus rëbb ba sonn. Mhm. ma toog ci ron garab bi ma toogee ci ron garab gi. ma dégg ñaar waxtaan. nekk mhm. jinne juy waxtaan la ak doomam. mu ne ko papa dama génnoon dama am fu ma demoon ñaani ji jabar ñu dàq ma mu ne ko ñaan ñu dàq la mu ne ko waaw. mu ne ko bu subaa ci heure bii boo fi ñëwee dinaa am jat bu ma la jàngal boo fa demee dinañ la may soxna si te dinañ ko boole ak yow ngeen ñëw. suba sa rëbb ba ñëw toog ci même place ba mm-hmm. ñu ñaan muy déglu jat gi papa ji di ko jàngal doom ji di ko jàngal doom ji ba jat bi sotti bi jat bi sottee rëbb bi daal di mokkal jat bi moom it jat bi jàll dëkk bu mu dem rek jigéen ñi dañ koy topp ba ci jabaru jàmbur yi sax ndeysaan dañuy fépp ngir topp ko mu jël secret bi jox ko sama waajur bu góor secret boobu di dox di dox di dox ba yegsi ci ñun. Mm-hmm. ñu koy liggéeyee moo tax ñun mbiru nopp mënuñ ci tee nit mukk mu ci ñu. Mm-hmm. yàlla may nañu ci lu wér képp koo xam ne daal ñëw na ci ñun diis ñu aajo ci wàllu nopp. Mm-hmm. mayuñ la weer waaye balaa moo mat juróom-ñaari fan. lépp looy sàkku ci wàllu boole. di nga ko am moo tax damay faral di wax ne mbiru boole jaru sax ñu ma ciy laaj parce que preuve yi ma ci war a def ah, def naa ko ci réew mi def naa ko ci biti réew ba mm. pare kon nag man ñi ma defal preuve mm-hmm. doy nañ ma rek ci boole ma ak yeneen doomu aadama ci mbiru nopp moo tax suñ ma ko laajee léeg-léeg damay gêné wu mm. parce que lu ma xam la lu ma mën la mm. lu ma tarbiya la lu ma yàlla may ma am ci yoon bu wér la Cheikh bi ku ni lii rek ne lee ku ni boole waaye wax wax dëddale est-ce que sëriñ bi di nga yëngatu ci wàllu dëddale dëddale mën na nekk ndax da ngay gis ne dëddale mooy nga gis ñaari doomu aadama yuy ànd nga tàqale leen. waaw waaye nag am na ci diggante yoo xam ne ñun duñ ci dëddale. mën nañ ko bu baax a baax a baax ndax dëddale di nga gis dëddale mu jàpp ba ci digg bi. Mhm. nga gis ñaar ñoo xam ne dañoo sëy bees rek. Mhm. teguñ ci dara kenn ki accidenté dee fekk dañ oh. leen dëddale. Oh. dëddale bi moom ki ëpp bopp rek moom mooy reste ka des moom mooy fippu ki gën a woyof bopp moom lay gën a jàpp toujours. Mm-hmm. Mm-hmm. ci wàllu dëddale buñ forcé ba mu dëgër di nga gis léeg-léeg dëddale am kañ dëddale def accident dee dafay am moo tax sëriñ si nañ bàyyi xel ci lu ñuy def. Mm-hmm. ci wàllu dëddale nag dama ciy liggéey ci benn yoon. parce que mus naa am benn jigéen bu ma woo depuis Angleterre. ne ma sama doom bu jigéen dafa am jigéen jum topp maanaam giwin lañ leen di wax ci jamono ji dañoo topp ñu ngi sëy guddeeg bëcc suba ngoon amatuma ndigal ci ñoom sonn naa. Mhm. foofu dagan na ngir nga dëddale. waaw gis doomu aadama boo xam ne dafa fekk sa doom ci jenn diine bu ko dugal ci diine ju yàlla gërëmul. ñoo mhm. ñooñu dagan na nga dëddale leen. di nga gis ñoo xam ne seen ànd bi amul njëriñ kii ànd kii da koy exploiter rek ngir yàq dundam. Mhm. kooku dëddale dagan na foofu. waaye nag sëy bu ñu xutba ci siraatikal mustaqim seeni borom nekk ci jàmm. kooku kenn waru fa dugg di dëddale mhm. waaye su ma nee na du ko liggéey damay wax waaye danaa ko liggéey waaye damay xool ci condition yi nga xam ne mhm. moom laa koy defee moo tax man diggante bu ma dugal bëgg a dëddale ku mën a doon mhm. su ma ci sànnee bal diggante boobu noonu li ñuy liggéey ci soble lañ koy def dugal ko ci fourneau bu tàkkee ba lañ koy def tàkk diggante boobu moom ba ilaa yow mi diin waxuma la mbedd sax. Mhm. waaye dëkk sax boo moytuwul. dootuñ bokk dëkk bu ñuy bokk incha allah. waaye macha am na solo leeral bu baax a baax a baax waaye fi ñuy jàll rapport dafa génn jàpp Mimi Touré ne 2 milliards yu mu luubal est-ce que du lim nekk ci opposition bi léegi nii nii moo tax ñu ñu bëgg ko xañ jant bi jamono ji. ndax mu nekkee ci pouvoir tamit da doonuñ ko woon wax dara. waaw am na ñu ne ci pouvoir bi luubal ñu dégg seen tur UGE épingle leen of nag oo leen wuyu jiwuñ nag bu kenn génnee. bokkatu ci nguur gi kooku mën nañ dal ci kawam Macky Sall nag dafa wax mu leer. Mhm. mu ne dafa am mbir yoo xam ne man maa ci teg sama conc am na doom aadama yoo xam ne boo leen jàppee réew mi yëngatu. Mhm. wax dëgg yàlla ci njiitu réew. war nga xool say kàddu. du yow ci sa mën-mën waaye sénégalais yi dañ la fi teg. bul làq sa doom dóor doomu jàmbur ku ànd ak yow moom moo baax lu ko neex mën na koo def ku àndut ak yow nga jàpp ko xoqatal ko nga tëj ko. ñun suñ waxee ci Mimi Touré lool mënuñ ko gëm parce que yàgg na ci nguur gi dirigé na fi post bu ne mosu ñoo dégg ñu tudd ko ci lenn ñu bàyyi ba mu génn ñu tudd ko kon nag day firi ne nguur gi fi ne ñoom képp ku génn rek bokkatoo ci ñoom ñu tudd jàpp say mbir am na ci doomu boo xam ne ci jamono Ousseynou bi dañ ko épinglé ne dafa jënd jënd ay kuddu quarante mille francs waaw ñuy koy wax aw kuddu bi mu duggee ci nguur gi dañ ko bàyyi. ñu gisaat ñeneen ñu ne dañoo sàcc alalu réew mi ñu jël leen tëj génnee ku ci mel ni soxna Ayda Ñong bàyyiwaat ko setal ko ndax dellu na ci nguur gi. Hmm. nañ seet ci yàlla li ñuy def. waaw nañ seet ci yàlla lu ñuy def mi Touré daal liñ xam ci moom. Hmm. jigéen ju jàmbaar la jigéen ju brave la. Hmm. ndax fipp na parce que bi mu gisee dëgg dafa gis carrément ne lii du dëgg ndax wax dëgg yàlla njiitu réew mi suñ kilifa la ñun ñëpp. waaye nag bëgguñ kilifa goo xam ne day wax waxeet. waaw dafa wax mu leer. toog ci média àdduna bi yëpp wax. Mhm. ngir yàlla soo ñëwaatee bul soppi sa kàddu mukk. Mhm. bu la ko alal jaral. bu la ko nguur jaral. bu la ko benn doomu aadama jaral. Mhm. ñi lay wax ne mën nga ko def ñëpp seen intérêt lañuy ñuy xool nañ fàttaliku ne doomu aadama yi dañ fiy jugee. waaye institution yi dañ fiy des président de la république day am daay man sengoor nguuram jeex na mhm. Abdou Diouf jeexal na mhm. Abdoulaye wàdd jeexal na bu fi yàggee dina jeexal bu fi yéexee dina jeexal mais nañuy fexe toujours ba buñ fa jugee nettali bi rafet ndax borom bi kenn rek mooy juge bu mag bi muy yàlla alaysa allahu bi ahkamil mhm. hakimin ñu mën ngaa daaneel ci sa diggante ak Ousmane Sonko lu leen boole li ñu boole mooy ñaan yàlla ñu am yaakaar ci moom lool. micro bi. waaw li ñu boolee moom ak usmaan Sonko mooy ñaan yàlla rek dañoo am yaakaar ci moom yaakaar bi mooy lan man damay wax ne bàyyiwu ma ba mu neex nag ma ñëw ngir dugg ci mbir mi ne maay sëriñam wala dara man usmaan Sonko bi ma koy xam booba duggagul sax ci nguur bi ma koy xam booba nekkagul sax député. man biñ ko dàqee man laa toog déglu discours am mu doy ma lool. mu neex ma lool ma doyloo ay mbiram ma xam lu bari ci moom nag bu leen foog ne amul mystique de waaw doomu aadama bu yàlla may mystique la doomu aadama bu yàlla may vision la nit ku sell la nit ku bëgg réew mi la damay wax ne nañ ci jàpp buñ ci jàppul dina mel ni Thomas Sankara ni mu rëccee Burkina buñ nangu loolu dina mel ni Patrice Lumumba nu mu rëccee keneen nañ ci jàpp bu dëgër a dëgër am na ambition nit ku sell la nit ku bëgg réew mi la te xam fan mooy métti ci réew mi xam na fan lay teg tànkam am na programme bu wér ñu ngi koy ñaanal yàlla te duñ dañ ci mukk di ko ñaanal yàlla lu dul dañoo toog ba gis ko mu dugg ci pale ba bu duggee ci pale ba nag ñu bàyyi ko mu liggéey su liggéeyul ñu folli ko fal keneen ndax nañ def xeex ba Macky Sall yéeg waaw noonu la ñuy xeexee ba mu wàcc hmm. ni ñuy xeexee ba mu yéeg Ousmane Sonko bu demee gisuñ ñu xam ñeneen ñu xeexaat ba mu wàcc ñun askan bi moo ñu yitteel du jëmmi Ousmane Sonko yaakaar lañ am ci moom ñu ngi ñaan yàlla yana ko yàlla may fanu gudd may ko wér-gu-yaram kàttanal ko bañ jox ko réew mi mu yóbbu Sénégal ci dëkk yi gën a avancé ci àdduna bi salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mi ngi noonu mbokk internet Allô Sénégal ñu ngi leen di jaajëfal di leen jox dig daje ëllëg seen beneen émission jërë ngeen jëf